comme le kilowatt, conseiller à la ville de Pékin, euh, officier de la ville du centre principal de Pékin aussi. Le ma la dame dame commune bi ko commune bi de la ci nit yoyu Mayel ci la bok Babacar tour ci la bok ibrahim Fall ci la bok Maye ci la bok ñent nit la jox ñoo ñoo xam biñ ko séddalee et peut-être am na ñoo xam ne ay responsable yoo xam ne dañoo waxoon dañoo foog ne peut-être lu génn si gànnaaw si war nañ ci am ñooñu suñu amul nag xaalaat leneen bu ko gis def sortie médiatique loolu dina jaaxal ni dina yàq commune dina yàq yàq ànd ci au niveau de la commune de Guinaw Rail Sud. kon détournement amul. détournement amul am mosul am doy te du am incha allah. lan moo motivé am na y' a des mécontents c' yoo xam ne ñoo foog lépp lu génn gànnaaw ñoom ñu génn c' est des

सा उनसठ अंजा